المسكين منه ومطعمين lam talumi Seyd Cheikh Ahmed Tijani ak mbooleem jabot tabiahum bi ixsaanin ila yowmi ddin asxaab alfadilati walsamaha walsiyaada ayuha alixwa fi llah ixwat alfatixi lima ugliq salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu aleykum salaam innahu la min dawaaci saadati wal imtinaan wala min bawaaci albahjati wa surur an yatajaddada baynana hada liqaa maymuun fi hadihi alxadarati almalikiyati altijaniya kullama ahalla shahru rabi awal shahri mawlidi nabi almuazam sallallahu alayhi wa sallam الذي نحتفل به كل عام منذ عهد الجد المصلح المجدد الحاج مالك سي وحتى يومنا هذا إلى أن يشاء الله إحياء وتخليدا لدعوته المباركة إلى الاحتفال به قائلا ألا عظموا ليل الولادة حسبة إذا لم يكن نحو الحرام عدول نحتفل به لنستنشق عبير نسمات مولد الخير والرحمة مولد الهداية البشرية والسعادة الإنسانية والأخلاق الكريمة مولد سيد الخلق alladi law azzamahu lxalq kulluhu laa yabluguuna xaq qadrihi wa miqdaari adim kama fi qawli limaam albusri radiyallahu anhu fa inna fadla rasulillahi الذي خصه الله من الكمالات أنوارا قدسية تشرق في كل جانب من جوانب حياته الطاهرة المجيدة وتضيء في كل لمحة من لمحاتها حتى استحق أن يصفه الحق المصطفى صلى الله عليه وسلم من كل وصف حميد حاز أفعل تفضيل رجاء البرايا يوم مزدحم بذكرى موج هذا الرسول العظيم نحتفل لنقتبس من نور سيرته العطرة ما نغذي به العقول والأرواح من المعارف والحكم ونلتقط من جواهر أخلاقه البهية ما نطهر به الظواهر والسرائر من الفضائل والشيم ونستقي من تعاليمه الرشيدة الحكيمة ما نرشد به خطواتنا نحو الحياة الفاضلة الآمنة والفوز بسعادة الدنيا والآخرة وتلك المعاني السامية والقيم الرفيعة لا تغيب عن رؤية عن الرؤية الثاقبة والبصيرة النافذة لي suufi alfuqaha wa faqihi almutasawifin mawlana cheikh alxaaji malik alladi iqtanama hada alxadas altaarixiya alkabira fursatan saanixa litawaasuli alruuxi walmaarifi walijtimaci linashri taalimi diini illahi fi atbaacihi wa tawsici daairati altacaaruf wa tadaamun baynahum wa tarsiixi mahabati rasulillahi fi qulubihim maa talqiini awraadi tariqati wa ijaazati almuqaddimiin wa wadi stratégiati difaaci an nafsi wa diini tijaaha sultaat alisticmaariya almawjuuda fi lbilaadi aanazaak fa ajaaba allahu dacwatahu li ixyaa wa tacliimi mawlidi rasuul salla allahu alayhi wa sallam fa baata ahama xadasin diiniyin ruuxiyin tacliimiyin التربويين في الحضرة التجانية وفي ربوع هذه البلاد ولم يعد الإحياء به آن قاصرا على ليلة واحدة ولا في حدود تواوا فحسب بل إنها امتدت لكل الليالي العام وللبلاد السنغالية ولكثير من البلدان ونحن في هذه الليلة الأولى السعيدة من ليالي البرد المباركة نبادلكم التهاني muraxibiina bikum axarra tarxiib shawqan ilaykum wa taqdiran li talbiyatikum daaina allaha lakum alyumna walxayr wa kullu aamin wa antum bi alfi alfi xayr wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh naa du war a guddati chance benn lettre bu ñu bind ba nu fa dajee ci weer yële passé tijaani bi yëpp ñoo fa daje juróom juróom benn fukki réew daje na réew mu nekk mbooloo tijaan daj jóge na fa ñëw teew faas mu bindi lettre yónnee ko jox ko ministre bi amee affaire jàngu tarixa yi danaa ci yegg benn góoru yàlla mësu cee yegg mu ni man danaa ci yegg loolu la doon wutee dajeeg maamu mu ni ko kay jël lii nga doxal ko ñu tariqa bu tedd bii muy wax ne waxuma sax di si nekk ci leer ak barke waaye tedd gi rek boo ci bokkee rek di tedd waaw doo xam lu ñaaw doo xam ko waxee mu ne ko bisimilah mu bind ko muy ñaar fukki sart ak ñett fi daan dajee ci ndigalu góor gu tedd gi ci ndigalu biir moo fi daan toog ak ñun jóge rek yi ko Seydi Hadji Malick bàyyee ñaar rek la ci def xelam ni ko waaye yow nga am ku doy na Maodo looy doy ti xalwa yow ngay jàppal ci moom rek mu daal di teg ne xalwa bés bi nag wax ko bés ba jot ndeysaan maa ngi demoon ndar ci dëju góor a ma njaay taalib amoon pas-pas la siñ Babacar Si ñu ñëwee nag fa ma toog rek ca takkusaan ñu ñëw déey ma ni ma Serigne Cheikh nee na nga bàyyi man loolu bañ fay dem fukki jullit ñoo fa nekk ak dem ñu ni fees na ñu jël ñu ñu luye ñaari charit man dañuy dem rek ñu luye ñaari charit charit daal xaw ma lu ñu gis mara di tali tëb rek ñaari balankaar yëpp naa ba defar sama valise yëpp bi ñu indi añ bi ma añ ba noppi li ma sowoo nii rek mel na dama for bët bay Cheikh Batou Fall ñëw ni ma Cheikh bul doom januar de soo demee doo dellu ma ne ko ah, man nag nga bëggoon ma dema <laughs> mun ma mun ma déedéet yow yaa ngi ànd sa bàyyi seen bakkan mu ñëw ci fi nga xam ni mooy siège u ceddo yi muy Tiwaawan booba Tiwaawan fi la dameel yeeg mu kenn xamul di di noose samedi ak dimanche waaw ak ñi leen di topp ak seeni tëgg ak seeni fecc waaw moom nag mu ñëw gannaaw ba nga xamee ni xalaat na ca tànk sëriñ baaw kër génnul mu teg bët ci moom fi lay taxaw rek croiser les bras ak ak kaska kaska yu xew yooyu xam ni ñoom xanaa Louis quinze ñoo ko daan sol waaye day taxaw rek jànn bunt tabax bi sëriñ baabu kër ni tëll nag mu daan jumaa ji ko dafa dem toog xool jumaa ji gis mu yaraax mu ni ah may gàmmu sama gàmmu di yaraax te fii ci Sénégal ku fi am tariqa bi te mu wér maa la ko jox wala kala ko jox maa ko ko jox ku fi am lijaasa te mu wér maa la ko jox wala ka la ko jox maa ko ko jox ma ni fas naa fii ba góor saane di fekke sama gam waaw ah, léegi de def naa ni fii ba Italie ak France ak Espagne ak Amérique ñëpp ngi ñëw deme demee ba soppiku dafa désigné tafsir Abdourahman Gaye boole ko ak tafsir Alpha Combaan ak sëriñ Mamaloo radiallahu anhum ni leen dama bëgg ngeen wër mag ñi ni leen ba leen Seydi Hadji Malick di may ñuy gàmmoo ci seen kër ya booba demuwaay dafa jafe waaye léegi demuwaay yomb na foo xëyee balaa midi nga dem tiwaawan foo gonte balaa six heures nga dem tiwaawan kon nañu bàyyi bés bi ak Maodo te ñoom ñuy ngénte maanaam bu bés bu dellusee waaw mag ñu bari may na leen ko ah, wax na leen ko ñoom tam ñu bàyyi di ñëw di gàmmu si su bis bi dellusee nag ñu door a ngénte am na ci benn mag ba wax ni ma ñun de demoon nañu ba suñu gàmmu kër yi suñu doom yi da ko fiy wëcc dem Tiwaawan man ko ah góor gi jinne bu bëggee daxaar ku yëg daan Tiwaawan ko xëccoog moom bés rek mu nangu ko mu ni ma waaye bi ñu bi mu nu waxee loolu ba ñuy ngénte gis nañ ca ubbi ko fatu goo xam ni ci ngénte rek lañ ko mën a amee population des waxtaan ak moom ci benn doomu soxna ci turu yàlla ndax doomu soxna ba way juróom dafa amoon turu yàlla yu kawe ba mu fi jógee nag sëñ bi aw kër si woo booba doom ji ndaw la mu ni ko indi sa kunna su papa ma denc ko ba nga mat koo jëfe waaye mu xaw seen nay sëñ bi aw ko kon bul tukkeeti fu ma yëgul defu ko mu ni ma rocc naa siru ba siru way ndare ba rocc naa ko dootu ci jëriñu dootu ci jëriñu nag sa àdduna te dem fa ñu toog it ma facteur bi fekk jox ma lettre ma xotti ko sëñ Moussa ñu ko bind ndax bi mbët yi muuroo lettre bu muy bind sëñ Babacar Si sëñ Moussa ñu ngi koy bind lu yéeme sax am na ci dafa am bés mu ñëw moom Baye Moussa ne soo amee jot nga ñëw sama kër ma la soxla ma dem mu dajale lettre yëpp ma lettre yi moom la sa maam daan bind sa baay sa baay daf ko doon classé moo ma ko joxoon nag léegi nag comme àdduna wóoru te jamono neexul dama la ko bëgg a jox nga garde ko yow mu jox ma ko mu indi ko ca ngoon sa gërëm lakk ngoon si këram lakk téeréem yi yëpp lakk ba mu des lettre yooyu mu ma gàdde mu ne nag lettre boobu mu xotti ko mbindum sëñ Moussa Niang la mu ne ko Seydi Hadji Malick dafa wax ni nga jege si yaram moom dafa xaw a laata ñu dellu si titisbaar ca la moom dañ nelaw gàmm si yëpp ndigalu Seydi Hadji Malick rek leen tax a jóg wax doo ko mën a lay nga defe na kon muy bésam mu ko yonent bi li àdduna bi la du mooy jëkk def guddi gàmm moom Seydi Seydi Hadji Malick boo seetee taarix alayhi wa sallam Fatima yuune yi ñoo ko jikkoon di def waaye di ko def ci façon bi mu leen neexee rek wax dëgg yàlla waaye bii nga xam ni jaamu yàlla la nag ak jàngale itam moo doo ko jëkk sos lépp di yàlla lépp lépp di yàlla ah mu dénkaane bu jotee rek ku am jot na nga ñëw ko defee la kon fekk amoo ngant rekk na nga bàyyi loolu def ñëw teew guddi gàmmu Tiwaawan ah, te ñuy fàttali nag rek toujours ñu ay taalibe lañu taalibe nag فلو أيها الإخوان عن حرف junni métier dafa doy ci bàyyi sunoo doono ضيفة فليحيها أبدا من كان ذا حرفة فليحيها لقد جد من كان ذا حرفة فليحيها أبدا من كان ذا حرفة فليحيها أبدا مجن سجن دمدي tuumaal yàlla ak dëkk ya sababu lu leen te bu leen sukkandikoo yëngu ya si góor gi ne taraku tasab tasab bu bi min su ima adabin sabab lu leen te bu leen sukkandikoo loxo ca kaw sabab lu leen te bu leen sukkandikoo yëgu ya inna raja ala fi waadin kaza tamaxun del tegtaloo dara dora yaakaar na jóg alal ya inna tawak كل واد ليس يس لكل ميكم منج أقويت البروم جل جليا بارك الله daana ci ñaaxe bu baax baax waaw def dara maa ngi fàttaliku ndeysaan bis mu ci salle bi bay Alaaji Siise ci Thiès nga tooñ ni ko ak ah, góor gi ñun taalibe yi luy suñu mécc mun ko mécc taalibe mun ko ah, mun ko mbay ak commerce mun ko mbay dafa laa ñetti taa teele teewe teengal machine dafa laaj nga am capital lu mu bon bon waaye lépp commerce lépp capital booram toujours ci suuf la jëm dafa am am am capital rasul maal awwalan wa qabla kulli capital ba lee bañ ne alhamdulillah commencé commerce ci suba commencé attaay ngoon commerce day daal commerce am na ñett mais seen pexe yëpp mooy nangu li nga am booleeg la ñu am soo muusul ñu def la ko mais bukki ñaareel bi mooy clientèle bi si ñëpp lebe nga lebe leen ñëpp duñu fay si nee bukki ñetteel bi mooy sa bopp bu fekkee sa frais moo ëpp sa bénéfice da lekk sa capital gestion mu tënk ko ci ñi seen diine seen tariq te bu ci ne daf ko daan faram-fàcc seen métier nag métier ku nekk ak la nga exercer ba xam ko nga jéem ci am loo dunde te bañ taxawaat bañ a laaj kenn ndax kuy laaj fa tool di laaj da ngay mujj soof nit ñi mu ni lan seen daay ndey ak ci diine ak tariq waxul ngeen dajaleel ma xaalis dayre mouvement de solidarité la entre les membres keesu daayira sëriñ bi moomu ko daayira bee ko moom solidarité loo ko jënde ñu dindi ci kees gi jox la soo amee ngénte te amoo xar ñu dimbile la nga am xar dem tudd sa doom suñ la tàggee sa mbokk fu sori te amoo paas nga dem ñu dimbale la nga dem doxi loolu looloo toxoon mu santaane ko 1927 ca Dakar série boulevard de la république boobu foofu la nekk ci kër Ibra Ndiaye Diop moo jëkk génn daayira waaye loolu la ci jubloon dafa bëggoon daayira nekk mouvement de solidarité nekk itam fooy mottali ko sa diine sa njàngu diine ak sa tarixa su ngeen dajee benn boroom xam-xam jóg dafa leen benn démonstration ci laab al wudu an al tahaara jàngale na wuduan wa xuslan wa tayammuman wa sibraan waaw jàngal la njàpp jàngal la cangaay tiim jàngal ferlu ndax boo ferluwul boo jàppee dina am lu rotaan te boobaa doo su beneen yoon mu indi leen beneen bunt indil la ahkaamul ibaada wax la la ci gën a kawe muy julli ni mu fooreek ni mu kaweek ku ko dul def ni la yàllay bañeek ni mu lay mereek ku koy def ni mu lay soppeek ni mu lay xëcce ci boppam ak wax la la ci aju yëpp su beneen yoon mu jël beneen loolu la bëggoon daayira nekk ko nekk koy mottalikoo ndax dafa am ñoo xam ne daañu am lu ñu réere te rus nañ koo laaj suñ ko waxtaanee ca daayira ba nag danga ko xam muy sutura te lislaam diine sutura la bi ci des mu ngeen di ñëw Tiwaawan ndax Tiwaawan ku fi jóg gi ñetti fan rek ñu turubale sa bopp wërkat yeeg kàcckat yeeg waaw dañuy day daal wax lu amul Tiwaawan da gis ku leen yittewoo ak nangam te gëj na fi daaw xamul sax fi xew wax rek lu ko neex kàcc rek oto mu ni deel ñëw tiwaan boo ñëwee xam li fi xew xam li xew ci àdduna bi ñu wax la ko nga def ko ci sa mbuus dellu dem toog te damay wax ni taalibe tijaan aju tiwaawan te doo fa dem yàggolo gu mënul yéeg a yem doo dem mukk yaa golo gu mënul yéeg yéen a yem ñëw ziar Cheikh El Hadj ñëw ziar ko moom mii ñëw ziar njabootam gële kooku chance su taale waxuñu nga joxe addiya fu ngeen ko jàngee. tubaab yi wooyee déedéet du ba ko tubaab yi wooyee ba mu demee Makka la dafa dër nee na moom Maodo moo ko nettali sëñ Babacar si sëñ Babacar nettali nu ko man sëñ Cheikh sëñ Munir sëñ Salim ñu gàmm ba ci ëllëg sa sëñ Cheikh téléphone ma ni ma doo ñëw nu ndokkeelu góor gi ci gàmm gi man ah kañ mu solu ñëw ma solu ne xaalam dafa ñëw ci Maodo laawaan yooyu ñu daan def eh, te loolu nag dafa nekk xam-xam boo xam ne bu raar la te bu yéeme la takk yi ñu daan def waaw ci alxuraan seetal jàngoo ma xaarijal xuruf jàngoo naxwu jàngoo tajwid te bind kaamil te du am benn yàq xam nga loolu yéeme passetu loolu nag la war a dajale ci suñuy richesse culturelle la bokk dajale ko nag pour waxtaan ci nag mën nañ cee def sa ay brochure ay kii génn ko bi si réew arab yi fi ñu jaar ba mokkal alquran fi ñu jaar bind ay kaamil te xam yu régal yi tabarakallah bisu gàmm gi itam comme ni ngeen ko xamee taarifu kama taarifun ni incha allah Fall dafa am juma Seydi Hadji